ñoom defar ñoom émission tey nag ñoo ngi fi nga xam ne muy yoof donc boo déggee yoof rek sa xel day daal di dem ci euh, Seydina Limaamu Laay donc nag euh, mu nekk dëkk bi nga xam ne euh, dëkku diine la ak cosaan ak xam-xam ah, ba tax na yàggul dara ñu daal di fi organiser appel donc bàyyi laay daal di ku nekk bàbbeeku daal di ko wuyu si nee na moom bu wootee ñëppay wuyu si te gis ngeen appel bi ba mu daal di amee 7TV wane na lépp donc gis ngeen fii ni mu bëree woon nit mu am nag ñi nga xam ne c'est des vendeurs à la sauvette maanaam dañuy daal di eh, jaay di daw di déplacé wu et cetera am également ay femmes yi nga xam ne dañuy daal di ñëw di jaay muy Touba Kaolack Ndiassane ah ba fii yoof laa yéen dañuy daal di ñëw eh, teg seen i njaay di jaay donc boo leen séenee ñoo ngi nee may séen donc ñoom laa fas yéene waxtaanal tey damay ànd àndat eh, sama doom sama xarit Fally eh, tey moo remplacé Cheikh at Papa donc Fally daf may daal di accompagner ma daal di dem waxtaan ak ñoom ñu xool njaay bi déplacement bi ak ñoom lan lan la ñuy jaay ñu daal di yaatal waxtaan bi bu baaxee rek Fally danga may daal di topp accompagner ñu daal di dem seeti voilà chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma leen ko waxee tantôt tey dama daal di seet si ay daam yu brave nee naa leen à chaque fois bu may tourner ay jigéen day gën a neex téléspectateurs yi wax nañ ma ko ba sonn mais neena leen ñoom laa àndal ñoom laa faral parce que ay jigéen yu mun góor lañu. donc ba tax na tey damaa daal di ñëw fekk fi samay daam yi nga xam ne la macha allah ñoom it dañoo jongoma comme man nee nañ man damaa jongoma ma ne leen yéen ma gën a jongoma fekk fi euh, ki nga xam ne mooy présidente bi euh, di euh, Khady donc nee naa ko sama turandoo mag ga soxna soxna jaara nekkee na le ci côté bi moom it daaw tourné naa at moom at ki nga xam ne mooy soxna may soxna nogay donc mu ngi noonu donc pour commencer damay daal di ñëw rek waxtaan ak ki nga xam ne mooy moo leen jiite ndax boo demee ci bërëb da ngay fekk magu bërëb ba nga daal di ko nuyu jàmm sante mu daal di la dalal ah soxna Xadi waaw soxna si maa ngi lay nuyu maa lay fay lay remercier ci li nga def nii dama cee kontaan ndax euh, heure bi daawu nga fi ñëwoon def lu mel nii ma rafetlu ko moo tax tey bi nga ñëwee ne dinaa ñëw defal leen émission ñu kontaan ci trop waaw. di la sant nag di la ñaanal yàlla gudd fan rek ak wér ñu bokk nag ñun ñëpp waaw. xale yi nag mënu ma leen a fay ñoom dañ maa jël rek jiital ma lu ñuy def bu ñëwee comme ni la waxoon rek comme noonu rek lépp lu ñuy def nag dañ naan ana xat jaw nañ xaar xat jaw ba mu ñëw te loolu yëpp noonu leen ca bañ a ndax toolu ma noonu melu ma noonu tamit mais ñoom ñoo baax waaw samay rakk lañ nag ma ànd ak ñoom mais dara ñaawul. waaw dara ñaawul. nekkul yaa baax tamit. ñoom ñii ñoo baax. Ah. waaw. parce que boo baaxee nekk mag. baax ba pare wàcce sa bopp. ñoom it dañ lay mag bu nekkee ci biir xale rek xale yi ñoo baax. waaw ndax xam nga mag rek yaa ma gën xam pare saa yi ma leen loo xamante ne du leen neex. nga leen magee mbaa bari na bari na bari na bari na am na ci ñoo xam ne mën naa leen a jur sax. waaw am na ñoo xam ne mën naa leen a jur. waaw ku ci mel ni ñoom day fay ñee waaw ak maam jaara mi ñoom ñëpp mën naa leen a jur ndogoy mi moom xam naa moom maa koy mag même sagar mee sax xam naa ne moom li ma ko magee moom xam naa ne dina bariwul daal waaye ñi ci des moom am ñoo xam ne mën naa leen a jur waaw mais macha allah daal waaw macha allah dara ñaawul waaw dara ñaawul waaw moom dama koo mere parce que dafa ñëw neen ah sagaru ñu ne yaa tudd ne làkkatu ak keneen ki nu tudd nday nday yow nga ne doo feeñ <laughs> tàppet la ñoom ñu génn tey ama ah, tax na euh, euh, yéen dañu euh, daaw bi ñu waxtaanee da ngeen ma wax ne Euh, événement religieux bu am da ngeen fay dem moo xam Touba moo xam euh, fu mu mun ci doon est-ce que doo ma expliquer exactement seen euh, seen parcours nu muy demee. comme tournée bi nii comme li ma la waxoon rek bu ñu demee Touba màggal Touba xam nga ñun Tiwaawoon lañ dëkk wax naa la ko ñun waa Tiwaawoon lañu taalibi seex lañu suñuy maam yëpp ay muxaddamu Alaaji Maalik lañu bokk ci famille bu baax bu riche nag bu am maanaa liggéey na dafa nekk jaamu yàlla rek. moo tax ñu ne ci li ñu ne. da ngaa gis nga de damaa jëm mag léegi. billaay damaa jëm mag. maa ngi xalaat ba nga nekkee xale. waaw jeex na kon ma ne ko jeex na kon yaa ngi may dégg léegi bu màggal jotee dañuy dem màggali Touba jël suñuy million nag investir ko ci suñuy bagage ñu banque demuñu commerce jëluñu xaalisu kenn ñoo ko liggéeyal suñu bopp ñun ay jigéen jëlewuñ ko ci benn góor yi tamit yaakaaruñu benn góor suñu doole ji lañu yaakaar. ñu dem màggali Touba jënd suñuy marchandise dem ba Mali nag li may wax nii ñii mën nañ maa seede ñooy ànd sama rakk yi ma la wax. Mali la bagage yi di jóge ñu dem ba Mali jënd suñuy bagage nag ñëw teg jaay di ànd ak yàlla suñu njaboot rek nag la ñuy liggéeyal doxuñu daray caaxaan taxawaaluwuñu tambaambaaluwuñu foo ñu fekk nag respecté ñu. boo ñëwoon nag ci waawoon fa ma dëkk bu gaa mujjatee ñëwal. defal ma lay ci waawoon rek fekk ma fa may jaaye ma yóbbu la ba ca kër ga TV day déplacé wu ñëw ba ñëw na ba Tiwaawan ba ba naa jox sama numéro téléphone nga ñëw ba Tiwaawan fekk ma Tiwaawan ñu diiñ nag ñu am maanaa am fulla am dignité ci seen bopp ku ne ne taalibe Cheikh xam ne bëgg àddina taalibe Cheikh jeex na defuñu dara caaxaan xamuñu ko sax bu ñu demee màggali jaaye ji bu ñu ñëwee dem Tiwaawan jaay léegi nag yeneen programme yi ci topp yëpp comme noonu li ma la expliqué rek bu ñu demee jënd suñuy bagage ñëw teg jaay suñu jaay ba suñu heure bi ñibbi jot ñu ñibbi suñu njaboot rek liggéey rek nag jaamu yàlla rek nag xamuñu leneen nag lu dul liggéey lu ñu am nag liggéey ñu ko may waaw alors ñu daal di xam ne ñu daal di buñ ko déggee ci muy wax moom soxna Khadijatou euh, donc di aawo yonent bi kenn du moom donc euh, moom boo leen ko déggee muy wax da ngeen di xam ne si une femme brave une femme battante man genre jigéen ñi dama leen di naaw genre jigéen ñi dama leen di bëgg di fekk ci euh, fi ñu nekk di waxtaan ak ñoom parce que boo ko déggee elle est intéressante ah li ma gën a marqué ci li mu wax nee na ñoom seeni million la ñuy jël daal di dem ba Mali jënd jaay seeni jaay donc dépendre ñu ci kenn pour rek def seeni commerce donc ay bu ñu ñëwee tey si li ngeen di njaay gis naa fi ay siddeem mu Mali euh, li nga xam ne mooy euh, gowee et cetera bisaab bu weex bu xonq est-ce que mën nga ma ak euh, képp jigéen da koy soxla. donc mën nga ma expliquer lan lan ngeen di jaay fii. waaw comme ni nga expliquer rek comme nii rek mu Mali ñu ngi jaay ndiir ak siddeemu doom bee ngay gis ak solom ak gowe même gowe bii sax waalo la ñuy dem. gooy waalo la ñuy jaay ñun gooy original la ñuy jaay. pare seen gooy dafa sakkan parce que li ma jënd daaw. moo ngi doog a jeex ba tey laa jëndaat. ba tey nga jëndaat tey leen la jaayaat déwén la jëmaat te booy taal muy gën a neex. gooy waalo digi je comme noonu rek ak bu ak bisaab ak lépp daal waaw ak kel yaa tout daal comme tooy xam nga ngay tooy par des fois boo jëlee sa buy ak sa bisaab daal di koy jaxase def ci sa kel boo ko naanee rek daal di yëg dara ci sa yaram waaw. dañuy gis loolu euh, ñi nga xam ne dañuy xaw a feebar wala liggéey liggéey bu metti bi sama genre euh, caméraman yi nga xam ne ñoom si si euh, terrain bi la ñuy nekk di daw daw loolu dañ koy soxla est-ce que lii maam moo leen ko jàngal ni ñuy mélanger affaires yi wala da ngeen ko jàng wala nan parce que des fois am na garab yi nga xam ne boo ko utiliser te mun nga mën nga si ñàkk sama waaw ndax boo gisee garabu cosaan ñu koy wax mooy comme maam moo ñu ko jàngal waaw ndax buy ak bisaab ak kel xam nga du français du tubaab kon xam nga olof la kon ñu ko jàngal. ba tey am naa fi beneen reen tamit boo xam ne dafa baax ci suukar mooy diabétique yi waaw ñu koy wax rëb-rëb waaw mi ngi nee ci ginnaaw. mooy bii jottali ma rëb bi. mu ngi nii ci suuf mi ngi noonu ci suuf. waaw bee kel la waaw mi ngi noonu. waaw bii xam nga fan la fan lay jóge Casamance waaw. am naa tamit beneen garab encore bu ñuy wax nandoom nandoom baa ngi foofu ci biir. ay saan ak biir yu métteeg yooyu yëpp. saan menn mi waaw. xale yi dañoo wu ñoom balaa ñuy. mooy lii Casamance lay jóge ah. yaa ngi may dégg mooy nekk naan doom bi waaw. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii mingi ngi fii daal yoo xam ne moom macha allah daal waaw yaa ma gën a xam xoolal neb neb bee lu ñu wax ci neb neb. waaw mi ngi nee waaw jeex na yooyu noonu. di nga waaw waa jeex na mi ngi noonu mais lépp ci maam yàlla. yaa wóor nag français ah. kon jeex na. ci Afrique merci di jël li nga xam ne mooy waaw garab merci di yóbbu kon jeex na yow kon li may wax kon yow li may wax xam nga ko waaw kon jeex na dañ see bokk Afrique on est les meilleurs waaw mi ngi noonu jeex na comme noonu rek daal comme noonu daal waaw ñu gis ne euh, appel bi euh, yàggul bi mu passé wee yéen boo leen ñëwee euh, ci événement religieux Euh, comme euh, appel yi màggalu Touba yi ñaata fan ngeen fay juré. Euh, comme. di ngeen fa def boo leen ñëwee ñaata fan ngeen fay def. am na ci sans dépend daal ci programme bi ni muy demee waaw ndax xam nga bu dee màggal diggante màggal ak gàmmu 21 jours léegi bu demee màggal dañ fay def ay 10 jours ndax préparation bi ne ci diggante bi digganteem ak gàmmu il faut nga ñëw mën ko préparer pour mën a demaat gàmmu léegi nag bu ñu fa defee ay 10 jours. dañuy wàññeeku dem préparer gàmmu gi utu jiwaat bagage bu jaay ak yooyu. comme nii tamit ay yoof ak yii mais yoof nag fu ne nii daanaka koor gi ñëw moo tax léegi ñun fii nañ fi def presque ay 15 jours léegi bu ñu jógee nag léegi dañuy daal di ñibbi nag waaw daal di préparer nag koor gi. yéen xam <laughs> préparer taaju ndog jeex na yu baax nag. def suñu yu baax nag yoo xam ne. mënu ma la ko expliquer sax nii waa jeex na kon yaa ma gën a xam. dañoo jëm mar nag waaye nag ah, kon ndox daan taa ah. ba tey boo demee fekk fa tepp tepp. man da ngaa wax sànq ci gowe bi lu doy waar parce que dama ne la man dama jënd gowe mais dama ko bëgg a xooj xoojal ko sama bopp ndax ñi may xoojal ñu ma faaw ma ñëw si si si yow nga expliquer ma nga ne doye bi noonu nga koy defee euh, comme que damay def tout le temps les astuces et bien-être euh, si ci télé bi donc peut-être dina am téléspectateurs yi nga xam ne dina am euh, quelques idées pour bu ñuy xooj gowee parce que am na des fois nit xoojal la gowee nga taal ko sa kër après odeur bi muy joxe du la neex tey yow nga ne tey waxuma la nga joxe secret yëpp nag joxal coppal ñamal ma si tuuti rek ñamal tuuti rek comme noonu rek na xam nga yow mënuma la bañ a ñamal dara mais bu doon keneen la dama ko wax de dama koy jaay mais yow moom sama xarit nga yaa ngi ma di comme ni ma la expliqué rek boo jëlee gooy bi surtout gooyee waalo bee da nga koy sebeti ba mu set nga weer ko ba mu wow dégg nga ma sutura bi mooy comme ni ma la expliqué moom nga ciy njëkk a sotti parfum sutura mais na dafa am bu ndaw am bu mag léegi bu mag bi mooy jiitu moom ngay njëkk a def ndox kese la boobu nga xooj ko ci comme noonu ma la expliqué woon yaa xam 15 jours 10 jours bu ko yàkkamti daal jëlee sa temps waaw mën na dem waaw merci waaw léegi nag boo demee ba boobu jeex am na yu kii yu ndaw ay bouteilles yu ndaw yi ma la expliqué nii waaw ay loxo ubbu ko ah, ay ànd bi loxo ubbu ko ànd bi ah sutura waaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yooyu comme dama lay ñamal rek waaw li ci des xam naa dama koy tënk waaw moo pare waa d'accord waa léegi ba pare yow man secret laa la koy defal nee naa leen ma xadi ku ko jege ku ne ah gérer sa borom kër wala nga gérer sa bopp comme il faut ndax nee naa leen avant que ngeen di xalaat góor ñi xalaat leen seen bopp donc dafa baax ngeen di respirer air pur ah, di nooy cuuraay bu neex di nooy parfum de chambre wala parfum de maison yu neex donc loolu ci baax des fois ngeen créer seen bopp ay cuuraay ay ay ay di xam ne mooy gowe yi nga xoojal ko sa bopp da ciy baax ah, donc ba tax na euh, gis naa ne yow kese nekkoo fi également euh, maa ngi dend sa benn rakk Euh, xaaral ma laaj ko tuuti avant may ñëwaat ci yow euh, Nogay gis naa euh, mama yi di muy wax yaa ngi sàndiwaale ay ay ay moo waaw di sàndiwaale ay cuuraay yi ñuy def <laughs> si si kii bi gowe bi yow yow yow wax ma la yow tey est-ce que mën nga xooj li nga xam ne mooy à part gobe cuuraay. salaamaaleykum soxna si maa ngi lay nuyu. di la sant. Mhm. parce que li nga def yombul wax wax wax dafa dafa metti wax yombul. ñu ngi lay nuyu di sant suñu camarade bi di leen ñaanal seen liggéey jëm ca kanam boo gisee nag ma sawar a wax si lii li nga wax sànq noonu dama koy confirmer ñun ay ay ay ay femmes yu brave lañ de un dañoo jongoma xam lu baax maa la wax lii barke maam barke maam seeraama aw u ñaareel ñaareel ñaareel ma sa wujju day daaw suñu jógee pour liggéey dañuy liggéey comme mbaam waaye bu def jotee boo dikkee suñu kër barke maam Seeraan Fall nga ne ñii du li ma fekkoon te yoo dañu yore suñu xaalis bi weex taal nag li la sama mag wax rek laa lay confirmer sànq namuñu daray góor namm nañ ko sax parce que ñoom ñoo ñu bàyyi pour ñu liggéey mais bu dee si def def ak jox-jox ak liggéey namuñu loolu noonu dañuy dem faayatal suñu bopp suñuy million nag benn banque nag duñu fayeeku nag euh, weeru dee ñu ngi koy sant yàlla suñu bopp ñun xam ne la ñuy jooy suñu aduna wér mais kantaale ne jooyuñu ko waaw ñun nag ñu ngi nii di jaay car macha allah bi ñu bi ñu déparé suñu kër ak léegi poroxaan lañu de dañoo déparé Tivaouane def convoyeur jël ay camions yëpp ci suñuy bagage jël suñu beneen oto car dugg si dem poroxaan bi ñu ci duggee dem poroxaan jaay poroxaan bi ñu jaayee poroxaan wàcc si Nioro fii euh, Kaolack bi ñu wàccee Kaolack pare wàcc si Touba Kazu Rajab bi ñu wàcc see Kazu Rajab wàcc si appel bi. comme yaa ngi dégg. léegi nag pare nag nag nii suñu pare woon bu du woon a côté élection yi ñu aj ñu ar euh, ziar suñu wàccee fii nii bagage yi du wàcc suñu kër de am nañ benn kër boo xam te ne mi ngi ci wetu zawiya foofu lañ koy wàccee daal dem suñuy kër dallu bañ ni tey la ziar général ñu dem lal jaay livre suñuy bagage ni ñuy livre la des ñu lal daal di jaay suñuy bopp ñu noonu la ñuy liggéeyee. macha allah ma gis ne ay comme ni nga ko waxee vous êtes des femmes très très braves donc xam naa ne jigéen yëpp bu ñu meloon ni yéen donc du xas benn jigéen ah, euh, teel a yeewu. am jom di liggéey ba tax na lii depuis combien de temps yéen ci yéen a ngi si liggéey bi depuis ñaata at. man moom bu ma waxee dëgg mënuma laa limal ñaata at la parce que bi may am 7 ans la ma sam papa daan oof may ànd ak moom di dem si mu woon benn puuru ban kër ga may ànd di jaayee lii lu nga miin nga. dama koo miin parce que may ànd moom di jaayee ji nag mu métti woon loolu jamono yooyu ba bi ma nekkee 20 ans suñu waa kër suñu suñu morom di jànku dañ ma daan wax yow da tardé nga sama benn wujju sama tante mu ngi siy dëgg maa ngi ci fen mu li ngay tardé yàlla nga ko yàgg a tardé lii du jàmm li ngay tardé baaxul li nga jëmal sa papa loolu moo baax mais rëccu ma ko daal parce que sama papa dafa ma daan koy métti na da nit ñaa nga wax mais dina neex ko après léegi liggéey boobu nag ci laa dama dem ba opté liggéey bi di liggéey ànd ceeg samay mag nag ànd ñoo xam ne ñoo la ciy jiitu ku mel ni laal la fay kooku mooy suñu mag laal la wax dëgg sa yàlla fu ma toog dama koy wax ku ñàkk ñaan la parce que bi ma ci door a dugg xale may dëkk di jënd par ay kilo kilo di ko mbuus ay mbuus 100 francs mbuus 250 mu dem ba benn instant mu am cofeel ci man mu dem bool ma patron yi mag yi yóbbu ma ba si ñoom mu téye sama loxo mu ni mu ni kii daf maa doy lu mu bëgg si alal jox leen ko ko parce que nit lu mu métti métti da waxal dëgg ndaxte nee lëg bu lekkee olom na ko gëlëme coy man noonu laa mel man sama sama àdduna noonu laa mel man rayal ma sama taaw soo ma defee lu baax daf may ne sama benn mag dafa yore taxi fii nii di dawal ñaari fan yi day day bàyyi kër gëm lu yoo ñëw di fanaan fi bi su ma xool ko sama yaram bi daw ma ne ko njaga def nga lu rëy li nga fanaan ni suñu dañu gàdde dafa rëy comprendre nga man noonu laa mel. fii nag tamit euh, y a beaucoup de sécurité parce que boo déggee yoof rek yoof doo fi dégg li nga xam ne mooy agression euh, doo fi dégg li nga xam ne mooy sàcc wala viol wala yenn détails yi nga xam ne ngay dégg dégg si yenn quartier yi euh, fii xam naa ne du ñàkk ne maam Limaamu Laay daf tee ñaan ba tax na aussi dégg naa sa mag Xadi daal di wax ni yenn marchandises yi soit Casamance ngeen koy jëlee wala li nga xam ne mooy Mali Mali à part foofu est-ce que da am yeneen secteurs yi nga xam ne foofu ngeen di jëlee marchandises si am na dañuy am goowe fere feñe fere feñe mi ngi ci ginnaaw poroxaan waaw mooy côté côté bi yaa ngi dégg dañuy am goowe boobu noonu dañuy am solo mu Casamance yaa ngi dégg am euh, siddee mu doom boo xam te ni bu fuuta bi la moo dàq dañ koy am parce que da ngay xam réseau yëpp am ndiir ndiir bi moom Mali lay jógee dañuy am carte Burkina kon dañuy dem ba Burkina. non pas sax duñ fa sax dem. Ah, mais dañ fa am réseau. am nañ fa boos boo xamante ne suñ soxlaa daf ñuy transfert affaire bi comprendre nga. dañuy am li nga xam si li nga xam ay kel la suñu suñu dëkk la ñoree dañ koy am bisaa bi suñu dëkk la ñoree dañ koy am ndiiri mali la am si mu mali bi mali la am dañ ko fee jëlee ji mu seer nag ba dee si déem mali bi noonu la seeree carton cent cinquante mille lañ koy jëndee transféré ko transféré ko di ko indi da ñoo toog jaay sump bi suñu dëkk la ñoree am na boo xam te ne fuuta la am na boo xam te nii jigéen na yëpp daal suñu dëkk la ñoree macha allah 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 de tous les événements est au canal 218. 7 TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au